Au micro sur Sen Radio, zéro les dernières informations du soir, Papa Abdoulaye Dièye aux opérations techniques. Une cellule de crise installée par le gouverneur de Dakar pour veiller sur euh, l'évolution de la maladie mystérieuse et assurer le suivi. Les pêcheurs sont hébergés dans un site créé pour la euh, pour la circonstance à cause du rush des malades dans le poste de santé. Ces pêcheurs euh, sont

et euh, les observer. Et pour les observer, nous avons pensé qu'il faudrait peut-être un site où l'on pourrait les loger le temps de voir l'évolution de la maladie. Euh, la deuxième mesure, c'est effectivement de faire des prélèvements et de s'assurer de l'origine du mal. C'est en maîtrisant cela qu'on serait à même de pouvoir euh, apporter le traitement qui s'y est. La troisième mesure, c'est également de faire des prélèvements au niveau de la mer, là où il euh, semble avoir euh, attrapé cette, euh, cette, cette, maladie, donc ce mal. ils ont donné des indications claires. Et en relation avec la brigade maritime de la gendarmerie, de l'environnement et le personnel du de l'environnement, nous allons faire des prélèvements au niveau de ces eaux-là pour voir effectivement si l'eau est polluée et la nature de cette pollution, mais surtout l'origine de cette pollution. Nous allons également, pour en tout cas cela déjà euh, accueillis. Alors euh, les héberger, les prendre en charge du point de vue euh, restauration, jusqu'à ce que nous ayons une idée exacte de l'ampleur de cette maladie. Et on nous signale également qu'il y a qui ne sont pas encore venus et qui seraient dans les quartiers et même dans les régions, donc autres que Dakar. Last but not least, un comité de crise euh, a été institué pour suivre de près cette affaire-là. Il y a également un volet social Déjà, dans le cadre du plan ORSEC, il nous restait euh, quelques produits que nous mettrons à la disposition du comité social. Euh, avec le service euh, des pêches et autres, nous avons vraiment demandé à ce que les pêcheurs-là n'aillent pas ou ne retournent pas en mer le temps qu'on s'assure de l'origine du, du, mal et de l'ampleur du, du... Et puis, rareté de la ressource halieutique ak Gaoussou Guèye de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale confirme il précise qu'il est temps de publier la liste des bateaux à qui le Sénégal a accordé les licences de pêche pour pouvoir réellement comprendre l'ampleur du phénomène euh, Gaoussou Guèye que nous écoutons il est joint par Amadou Moustapha Dieng. Depuis ces bateaux industriels qui sont dans nos eaux, qui pêchent. Euh, Aujourd'hui, ce, ce, phénomène peut expliquer la raréfaction de la ressource. Je ne suis pas totalement sûr que c'est ça, mais ça peut jouer une incidence en tout cas sur la raréfaction de la ressource qui est devenue réelle aujourd'hui. C'est un constat que l'ensemble des Sénégalais peuvent faire. C'est la raison pour laquelle vous préconisiez l'adoption d'un plan de développement du secteur c'est un accord qui est purement saunier. Et ce ton-là, comme je l'ai dit dans le communiqué, n'appartient pas au Sénégal. L'accord-là, c'est l'accord de Je vous rappelle que de à le Sénégal avait suspendu le protocole de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. C'est en qu'on a signé l'accord. Et l'accord-là, ça a en qu'on a fait un prolongement. C'était sur 14 000 tonnes, on a diminué sur 10 000 tonnes de tonnes, euh, 10 tonnes de plus deux merlutiers qui avaient 2000 tonnes, on l'a réduit à 1750 tonnes. Il y a un appui sectoriel où on avait ciblé des actions. Mais ces actions-là, comment on les a réalisées Comment on a fait pour le faire Mais Maintenant, est ne doit pas avoir la transparence sur cet appui sectoriel C'est ça que je dis, pas autre chose. Et c'est très simple. On a bien Donc, Faisons attention, de ne pas faire un amalgame pour mm. qu'on nous oriente mm. sur les accords de pêche avec l'Union européenne et oublier le problème des portes chinois et autres. Et encore une fois de plus, ce que nous réclamons, ce que nous demandons, c'est la publication des listes des navires qui opèrent au Sénégal sous licence. Incendie du marché Ocas, le directeur du commerce intérieur au chevet des sinistrés, Omar Diallo, a saisi l'occasion euh, pour annoncer la, constru construction d'un marché interrégional à Touba et la réhabilitation du marché Ocas. Le projet est en cours selon Omar Diallo, micro de Toutissé. Les instructions qu'avait données le président de la République pour la reconstruction et pour la modernisation des marchés et se justifient davantage parce que ce que nous avons vu aujourd'hui euh, nous permet euh, d'aller encore beaucoup plus vers la modernisation et la sécurisation des marchés. Dans ce cadre-là, nous avons prévu euh, de réaliser des marchés interrégionaux euh, et des marchés centraux qui seront réhabilités. En ce qui concerne euh, la région de Diourbel, le marché de Loubédiop fait l'objet de ce programme de 300 millions qui a été dégagé et qui a commencé à être réalisé. Plus précisément, ici à Touba, le marché interrégional était prévu, est prévu pour être euh, édifié ici, dans la ville de Touba. Alors, en relation avec euh, l'AGETIP, notre partenaire, et en relation aussi avec les autorités religieuses, il s'agit de choisir le site qui va abriter ce marché interrégional. Dans un premier temps, euh, dans un deuxième temps, Ngirandel. dans tous les cas, euh, les autorités sont en train de, de, de, de se concerter avec euh, l'autorité religieuse de Touba pour pouvoir déterminer véritablement le site qui va abriter ce marché interrégional. Dans, euh, dans une perspective euh, très proche, il sera question aussi pour réhabiliter et remettre aux normes le marché au cas de Touba qui peut être inséré euh, dans le programme des marchés centraux. Adama Ndione Euh, xibaar yi ñu doore ko nag cellule crise bi ñu daal di samp gouverneur bu Ndakaaru ngir daal di nag topp feebar boobu nga xam ne moo alawtiku ñii di euh, nappkat yi ñoom sax dañ leen dalal ci ab site boo xam ne sax euh, xew-xew gi moo tax ñu daal di koy amal ndax ñu amee feebar bi poste de santé bu banlieue bi mënu leen nag dalal ca caaro yi tax nag nappkat yi ci des ñu aaye leen dem géej laa tax ñu daal di nag saafara jafe-jafe bi daal di am gouverneur di dellu dellusiwaat ci matuwaay yi moom Hassan Sall ñu déglu kooku Moussa Thiam. alors bi ñu ñëwee nag gis nañ ni phénomène bi entre démb ak tey dafa mel ne dafa yokk ndax démb ci guddi euh, liste bi ñu waxoon nombre bi 82 personnes la woon mais tey nee nañ ñu mbir mi dem na ba egg ba romb 200 alors ñi ngi stabiliser chiffre bi mais su ngeen gisee mbooloo bi nekk ci poste santé bi war nañ mën a yaakaar ni loolu am na. alors léegi nag comme mbir mi egg na fii ñu ni kat lii day nekk lu nga xam ni il faut que au niveau régional voire national lu jël ko en moo tax ñu def benn comité de crise bu nga xam ni dinaa ko jiite ànd ci ak autorités yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale euh, comité de crise boobu di appuyé wu nag ci ay cellules yi nga xam ni benn yi mooy cellule technique euh, boo xam ni dañ ciy gis waa docteur ñi nga xam ni ñoo yor santé mais également ñi nga xam ni ñoo yor pêche bi ak euh, ñi nga xam ni ñoo yor wàllu sécurité ak environnement pour ñoom ñu jël euh, ñu jël xale yi en charge ci seen wàllu santé d'abord mais également def des prélèvement prélèvement pour xam mal bi lan la origine am lan la ak nan lañ ko mën a faje mais également def prélèvement ci ndox bi pour xam ba xam ndox bi c'est effectivement pour ou pas ndax mal bi ci ndox bi la jóge yooyu donc yooyu yëpp cellule technique boobu ñu nga xam ne mettre nañu en place moom moo ci liggéey ca am na prélèvement ñu def ci yaakaar nañ ni résultat yi dinañ ko jot ci lu dul lu dul yàgg deuxième chose mooy dina am benn commission sociale parce que xale yi mënu ñoo toog fi bu ñu ñëwee ba ñu jël leen xaw leen a xaw leen a xool faj leen ba nga xam ni téye nañ leen ñi nga xam ni mën nañ leen yóbbu ci benn benn site ñu xaarandikum dinañ leen fa yóbbu waxtaan nañ ak maire bi dina joxe benn site bu nga xam ni dinañ ko. la euh, maison de la femme de la femme bu nekk fii ci ci Thiaroye sur Mer ñu yóbbu leen foofu euh, préfet bu Teng bu Pikine. ci wàllu plan rek joxoon nañ ko ay batelage yoo xam ne am na yu ci desal dinañ ko ci jox bu ko defee xale yi dem foofu toog a foofu ñu indil leen euh, lu ñuy jëfandikoo foofu mën leen a suivre bu baax fii ak suba ba gannaaw suba le temps que vraiment ñu maîtriser situation bi ñu maîtriser maladie bi. ci wàllu sécurité légale ñu jël ko wax nañu xale itam pêcheurs yi bu ñu demati géej euh, fan yi le temps que ñu pare ci li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy liggéey. guñ ko def nañ prélèvement yi dem na mais résultat yi yaakaar nañ ne xëy fii ak ngoon mu ñëw bu ñëwee dinañ mën a wax euh, exactement fan la feebar bi jógee lan ban feebar la lan moo koy faj bu ko defee mbir mi gën a gaaw incha allah Euh, ci li aju nag euh, ci rareté bi am ci euh, li ñuy bàyyi ko nag ci géej gi kii di gaaw su Gueye bi confédération africaine organisation ñu yëngu ci wàllu nag napp gi moom dëggal na ko la mu ca daal di dolli mooy dafa daal di nag jot ñu daal di fësal liste bateau yi nga xam ne ñoom la Sénégal jox licence ngir ñu mën rek napp ci suñuy waax rax ci dolli itam loolooy tax ñu mën a xam dëgg-dëgg jafe-jafe bi fu mu féetee su géey ñu déglu ko ko Amadou Moustapha Dia en tout cas jën moom ñàkk na trop muy muy nappkat yi muy mareyeurs yi muy femme transformatrice ba ñu koy lekk ñoom ñëpp xam nañ ne tey Sénégal jën manqué na fi amatu fi lan moo tax nag mu manqué tey man ci li ma jàpp mooy am na ñoo xam ne dañu ne am nañu ay saxaar yu mag yu fi ñëw di napp xamuñu lan moo leen fi indi naka lañ fi ñëwee ak lan la ñuy napp lu jaral li jën ci la beneen bi li mat a xel te nga xam ne xale yi ñu koy def un lien avec ça waxuma loolu moo am. mais xale yi nga xam ne ñu ngi gàddaay bi jël gaal yi di dem ñoom dañuy wax ne jëm moo fi amatul ba tax ñoom ñu gàddaay di dem encore une fois plus damay attirer attention nit ñi du immigration clandestine xale yi dañu gàddaay dañu gàddaay jóge réew mi pour dem parce que ñoom ñoo wax ne ah mënatuñoo am jën bu ñu napp moo tax ñu gàddaay dem dëgg la wala du dëgg au lieu ñu nekk fii di ñu wax naan ñaara dee ñetta dee wala juróoma dee dañu war a taxaw xool lan moo tax xale yi wax loolu jàngat ko ba gëstu ko ba xam ko jéem a xool ban saafara lañ ci indi moo gën werante bi am na wala amul yéen wax ngeen ne cent vingt bato moo am am na rapport bu seen DPM bu gën a ne cent quatre-vingt-dix-neuf la xaw ma cent quatre-vingt-dix mais ñoom nañ ñu publier liste bi rek buñ ko publier mais ñëpp dinañu xam comme ça li ci nekk dinañ ko xam parce que dinañ xam ci fi indi gaal gi naka la ko fi indee ci ban société la ci ban yi lañ ko war a jox licence wala ñu ko ci jox parce que encore li ma lay wax union européenne accord bi ñu am ak moom nee nañ la am na ñaar fukki gaal ak juróom-ñett yoo xam ne ay senneur lañu congélateur am na fukki gaal tonnier yoo xam ne ay canoër lañu am na cinq palangrier ay espagnol ay français ak ay portugais xam nga kooku xam nañ ko waaw yeneen bateau yi nga xam ne ñu ngi ci géej gi xamuñu ku leen moom xamuñu lan leen fi indi naka lañ fi ñëwee ci ay société leneen ak leneen hmm. loolu la ñu wax ne nañ ko publier nit ñi xam ko jàmm na ñooy. ci leen ñuy daal di dem nag ci lakk-lakk ba am marché Ocass ak nag directeur bu commerce intérieur dem seeti nag ña loru Omar Diallo nee na daal dinañ tabax marché boo xam ne dafay lëkkale diwaan ya fare ca euh, diwaanu Touba waaye te marché Ocass googu nañ ko defaraat ba projet yooyu lay ñu nga ca jamono jile Omar Diallo ñu déglu ko tuuti si. donc ñun ci suñu bopp ñun ministère du commerce ñun ñoo njëkk sentir lakk bi ni ñun la njëkk affecté parce que infrastructure bi xam ne ne ñun ci la ñuy encadré su lu ci ëpp ci suñuy mission ci kaw loolu mooy wax ni que euh, lii dafa tax ñu gën a mën a taxaw pour dem ci li nga xamante ni moo doon suñu objectif principal mooy ñu réorganiser marché yi mooy ñu moderniser marché yi ci kaw programme bi nga xam ne ni programme de modernisation des marchés moom la ñu teg fii programme boobu dafa jël li nga xam ne ni préoccupation bi ñu am ni tey ci lakk bi dafa nekk ci programme boobu maanaam mooy lan mooy moderniser marché yi ba pare sécuriser leen ci kaw loolu ñu ne dañuy defar marché centraux yi nekk ci ci ci ci ville yi dañ leen di jëkk defar li nga xam ne ni moo am fii Diourbel mooy nga xam ne ni marché central bi mooy marché central bu Ndoumbé Diop programme bi foofu la njëkk commencé commencé nañ ko exécuter te def nañ fa pratiquement euh, enveloppe bu trois cent millions ñun ak waa AGETIP ñu ngi ciy liggéey pour que euh, marché boobu ñu mën ko réabilité fii ci Touba dañu prévoir def fi benn marché interrégional marché régional boobu dañu am ñaari ñaari bërëb yu yuñ ko war a mën a def. Jirandal ou bien euh, fii ci marché Ocass loolu euh, décision bi pour wax fan lañ koy def daf dañ ci nekk di liggéey ñun ak euh, kilifa dëkk bi ak ànd ak ak sunu naatangoo yi nekk AGETIP. lu weesu loolu. mooy que ni fii li ñu gis fii dafa laaj aussi ñu sécuriser waat marché bi ñu boole ko au moins ci modernisation ak sécurisation bi nga xam ne commencé nañ ko def ci marché centraux yi. Adama Ndione. Euh, mbokk xarit yi fii la ñu yem ak gi xibaaru fajar gi eh, lañ leen joxaat nag eh, rendez-vous ak eh, waa Sud Matin jaajëfal nag Papa Abdoulaye Dieye mi ni àndaloon ci tàkku tàkkusaan seeg léegi bàyyi leen ak programme u Sud seen rajo ngeen fas yéene ci ànd ak loom jaraaf ci seen émission taal leen làmp yi gërëm nañ leen sante leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu fanaan jërëjëf yow itam ñu ngi lay gërëm Adama di la ziar baax a baax